yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Ousmane Sonko faboon a wutal si Ndakaaru ngir déloger Macky Sall journal Tribune moo ko bindee noonu ci xët mu njëkk Le Témoin nañu cooki final la woote Les Échos nañu démb la ko woote ne ginnaaw lëlu gi mu lëlu woon fan yi yëpp ca Ziguinchor confiné wu Ousmane Sonko déconfiné wu na démb génn ci mbeddi Ziguinchor yi ànd ak mbooloo mu bari fa la waxee ne jàmm jeex na cooki final bi jot na te ca Ndakaaru fa la war a amee mu ne jeunes yëpp jox naa leen rendez-vous Ndakaaru nañu daje ji Ndakaaru jàmmaarloo ji fa ak Macky Sall tegal ko rapport de force bu delluwul gannaaw ci li mu nekk ñu fekk ko ca palais ba mu nekk génnee ko fa léegi ko nañu Ousmane Sonko wax na démb ne Macky Sall ak ko procureur ñoom ñaar ñu ànd dem ca kaso ba moo gën a yomb ñu ko yóbbu kaso moom Ousmane Sonko Vox Populi ngi jëm si Ndakaaru ngir cooki si fii cooki final ak Macky Sall laa kay nañu ginnaaw jaaba jonge giñ ko fi doon jaaba keroog ca tribunalum Dakar moom président bu parti Pastef bi nee na dafay ñibbi si Ndakaaru annoncé ne it mooy bëgg a dagg seenub xol moo tax ñuy seet nu ñu bëgg a yàqee sama der ak di ko bëgg a gàkkal waaye loolee dañuy sonal seen bopp rek ne du ma sa ndax li am yàlla ko def déclaration de guerre sursoir nee nañu moom la waa def démb nee na dafay a jaar delluwaat si Ziguinchor te dara du la tollu jamono def ab caravane de la liberté na léegi diggam ak Macky Sall tolérance zéro dootu ko may dara Le Quotidien teg ci bind ne président bu parti Pastef woo na bi ci insurrection l'observateur mi jàppee taxawaay Ousmane Sonko bi ak jusqu'au boutisme mu di taxawaay dem ba jeex mi ngi ñuy wax li ko waral professeur Papa Fara Diallo dib analyste politique mi ngi jàngatal wàllu observateur taxawaayu Ousmane Sonko bi ba di leen xamal ne li muy jéem moo di créer fi lu mel ne li fi woon ci weeru mars atum 2021 jalte jalteeg fitna ji ñu dund ci réew mi ci weeru juin ndax politique ñoom it dañuy kuréel gii di Macky pour ne ñoom dañuy manifester 3 juin te lu ko jiitu mu di 1er yoon war naa joxe verdict bu coowal Sweet Beauté li bu Sweet Beauté bi woon keroog docteur Alfousseyni Gaye ak li ñu ne moo ko waxoon te moom gynécologue bi mu weddi ko ne waxul loolu l'observateur xëy na di ko tiiñal ubbil yéene kay bi dañu ne keroog ca chambre criminelle bu tribunalum Dakar docteur Alfousseyni Gaye ba mu jàkkaarloo da mu bind bataaxal Wàdd di tuumaal yéenekaay bi di l'Observateur ne ñoo ko waxal lu mu waxul rédaction bu l'Observateur xëy li docteur bind ko rédaction bu l'Observateur ak li ñu bind tey ñoo cee xamle ne xame wuñ leen ci wax ju sew waaye lu ëpp tuuru dafa baax ñuy leeral askan wi tànn l'observateur tànn groupe futur média jiital ko wax leen lii dëgg ndax taxaw di wax na waa l'observateur dañoo soppi waxi docteur Gaye loolee ay kàcc la yu tooy xepp ku yaakaar ne mën ngaa xupp l'observateur baa nga ndapp ko baa nga ko ba tax def li askan wi di xaar ci moom yaa ngi nax sa bopp l'observateur dafay wéy di taxaw way ci joxe ay xibaar yu wér te leer rédaction bu l'observateur ne dóob sax cib leader politique bu mel ne Ousmane Sonko mu taxaw di wax ay waxi bàll puy de yu tegawul fenn ñu ne cër bi ñu jox ñu ko jox bopp ba tax ñu leen ko tax na duñu sori ci wax ji waaye képp ko yaakaar ne man ngaa napp wàll observateur wala nga koy xupp baa nga koy menacer ak di ko intimider ba tax mu yox yoxi baa mu teggi tànkam ci li mu nekk guddal mbayum noor la dóor nga sa loxo ci ëkk Faly Sané di waa ji ñu fekkoon muy ngénte doomam ci Kër Massar ñu jàpp ko jël ko yóbbu ndax tuumay taal dépp bu Dakar dem dikk libération ne nañu waaja ma nga ca kaso ba moom la ñu mandat dépôt ak Jacques Diattara ak Yaya Coulibaly Faly Sané libération ne nañu ab xaritam moo ko jaay ba ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee moom Faly Sané nangu na ne moo taal dépôt bu Dakar dem dikk waaye da doon kaf bës la bëggoon